da ma tuuti dèjà ku ku tegoon la tegaloon avance ne ne groupe làmb yi may wax yëpp par des bu ñu jiyee man xam la laa Boy Dakar wala kii nu mu tuddati beneen booy bi nekk si Mbodj gum Boy Dakar gum buñ demagum ci beneen booy voilà Boy Dakar ku la tegal avance am nga jël ko bu ñu ma joxoon avance am léegi juróomi dërëm hmm. ma jënd si tàngal may sama gars yi ñu màcc ñu préparé ko waajal sa nga jël avance Boy Dakar booy Dakar xam nga booy boobu est-ce que xam nga kooku li muy. dàqu ma bëre. su ma entraîné maa ko ëpp doole fuuf. ok te su ma ko jàppee dama koy daan. bu combat bi taxawoon boo ko jàppee daan. déggoo li ma la wax. booy Dakar booy Dakar. répété. booy Dakar kii la périmètre lañ koy wax matul nit. mais loolooy problème bi guddul réewul. mais moom laa moom laa lay wax moom laa lay wax. mais moom moo jommal gars yi. ñu day bëre nit mu xoolal da nga koy long large ko mais day bëre nit ki wër ko ba sempi ba ci kaw dooti suuf sama kanam luñ ma nettali. combat mi yu bari. seetaan naa ko bi mu mujjee bëree Giro Seras. Ah. maay maa ngi woon Essa. Giro ndaanaan la. Giro ndaanaan la. mu jàpp ko daan. maa ngi woon bi mu mujjee bëree moo kii. Tigo Tigo waaw. seetaan naa ko. léegi. man dama bëgg maanaam ndaanaan dama bëgg waxuma la ay booy yi nga xamante ni dañ leen di buuxal ay yoon ñu dërëm. wax ma ñooñ de man champion yi laa bëgg a dajal. ah da nga nangu ne booy la. non sa a bëri la. ndaanaan la maa lay soog a dégg te man ndaanaan la si ñi ma xam maanaam parce que ñi ma xamoon mënu wax a ñoo non su ma la déggee da nga bëgg a wax ne yow bala a wane li ne ci yow ñu jox la ndaanaan ñu jox ma ndaanaan yow xam nga loolu ah, ma dugal man maa la jaay tontu ma dugal loo si mën di déggee sëy naa ah, ah. yow xam nga man maay kan billaay xam naa xaw ma ku la xamul léegi nag moo tax man ñi ma xamul bu leen neexee ñu wax lu leen neex mais ñi ma xam xam nañ ne ku dul booy Dakar sax hmm. bu ñëwee ñu bëri te bu ñëwee dama lay xoolee benn adversaire muy booy Dakar da nga ni ay booy ragal kan nga fi gis ragal boy, fi bari yi nga xamante ne dañ fiy coow ay ragal lañ li ma ma benn ne ma diw ragal la ay Ada Fasso ay Thiatou Nguéwélo ay nu mu tuddati Kogna 2 ñoom ñëpp ay tapet lañ li fi tapet Ada Fass du tapet non Thiatou Nguéwélo du tapet ñoom ñëpp déedéet parce xam la moo tax ma la loolu noonu xam la moo tax samay morom lañ te liñ def li ma def lamb defuñu ko wala defuñu fi loo xamante man def ma ko dañoo ñu bëri samay morom lañ man fu ne nii sama tàngu tëngee jëpp ko wax lay wax <laughs> da nga ah ah ah tey bu fekkee ne war naa mën a bëre ñooñu wax bu fekkee waruma bëre ñooñu nga wax. non bu ñu waxantee dëgg rek. waaw bu ñu waxantee dëgg rek li nga wax nii dama la ciy fekk. voilà ñu fi loo fi defu. gën voilà gënuñu la rafet palmarès bu ñu waxantee dëgg rek kay. ku si daanu. ku si bëre da ngay daan boo amaatee beneen combat mën nga daan wala nga daan daan daan. mais mais xam nga Ada Fass est-ce que xam nga ko Ada Fass est-ce que déggoo ko rek. <laughs> est-ce que seetaan nga booy boobu. <laughs> Ada Fass seetaan naa ko. techniquement est-ce que xam nga ce dont il est capable. doomu ndayu kii Cheikh Seye. dama <laughs> borom Medina ma ma tooñ ko. ma ngay siyaar xam nga xam nga Ada Fass wala da nga ko dégg rek da ngay dégg ñu naan Ada Fass Ada Fass wala mais est-ce que gis nga booy boobu. non xam naa ko nii. nii parce que damay damay dem esaat seetaan ay combat. wala man dama ko xam bu baax léegi man dama lay conseiller xoolal bàyyi kooku. non wiiril ku leen arafat ak ne leen noonu grave ba ci kanam non non man dama la il est dangereux eh, booy boobu dafa dangereux eh, dafa mën a bëree booy boobu yàlla xam na ne maa gën a dangereux yàlla xam na ne man maa gën dangereux li nga wax gëm ko gëm kaa tax ma di ko wax d'accord ñooñu dañoo war a ñu bëre non bul bul na ñoom ñooñu ñoom nañ non kenn par non dama la bëgg xamal ne rek ñoo ngi ci arafat déjà waaw dégg déglu ma wax la ñoom ñooñu ñëpp bu kii bañee na keneen ñëw kon daal ku tegoon avance Ada Fass nga jël waaw xaaral ma limal la léegi ñëw nga ci kan caatu ngéwél Ada Fass caatu ngéwél booy Dakar nu mu tuddati euh, kii wës jàmbaar karateka bi ñoom ñëpp euh, xeeru ngoroo mhm. nu mu tudd bébé bis mi uh-huh. ñoom ñëpp dama war a bëre ñoom def ñu fi lu mu deful de. say adversaire nga fi lim bu ñu waxantee dëgg rek. Ah, loolu la boo waxee lu logiqueul dama naan booy li nga tegoo ko fenn mais boo waxee lu logique aussi dama naan ça c'est logique. mais dañuy jël kenn par kenn. parce que da nga liw caatu ñëw mu bokk ci booy yi gën a lëkk ci booy yi. mën a bëree mën a bëree booy yu booy yu booy yu yoof bi. mën bës nga nga toog fi di tudd turam. lëkk koo xam ne dafa lëkk foo ko toll day bëri. Seydina hmm. dama yaakaar ne yow yow. yow dama nga ma xamatul xanaa ak la xam xam naa la bu fekkee xam nga ma rek non non non dañuy waxtaan doo ma tëkkaale boo yooyu non may ma tuuti xam nga mm-hmm. xam ne da nga foog ne tey dama ñëw sa gaal ñu toog di waxtaan moo tax na ñoo xam la man ni uh-huh. la noonu dëgg la buñ la xamee woon noonu kon tey fekk na nga dépassé niveau bi xam naa ne daal loo si mën di dégg mm-hmm. Mataan Ndiaye mooy sama moo nekkoon sama ménagère mm-hmm. xam na ma bu baax moo moo moo maam ñaaw ñoo liggéey mais dama ne la ñoom ñoo ñoom nga fi liwal ñii man man sax. ba ci caatu ngéwél ku la joxoon avance. dama la bëgg xamal ne ku ñëpp bàyyi laa la wax. xam nga booy Dakar ab day wër-wër di wër fan nañ ko kii fan yi passé mu delloo ko. nu mu tuddee si sax petit ñaa. combat am taxawoon na moom booy Dakar mu delloo avance xamul lu tax. waaw mais dama ne la. ñooñu ñëpp dama leen tegee nee booy dakaar rek. booy Dakar la ñëw waaw parce que moom teg na ne ay victoire. Mm-hmm. amagul défaite. amagul défaite waaw bu ñëwee ma laal ko suuf. kii ah da nga ko a bu ñëwee dooy Dakar bu ñëwee pour yow li ñu naan booy Dakar mësul daanu mësul daanu da nga jàpp bu ñëwee Tidiane Faye man man sama jëm bopp hmm. dinaa ko laal dafa boo xam ne man dama koo ragal man naturellement muy muy wës jàmbaar bu yaraax waaw kooku su ma sañ nga génne ko ci liste bi lu tax parce que mën non wax léegi tudd fi wës jàmbaar benn promoteur seetaan bagage yi dem contacté ko ne ko wës jàmbaar yow war fa jaare taxaw fekk ne yaa ko tuddoon fii bu ma sañoon nga bàyyi waxu wës jàmbaar waaw dafa ndànk lan moo tax ma koy bàyyi non kooku karatéka la kung fu lay def kooku day day bëree day kënf day lépp. moo tax ma xam nga Weuz Diambar xam nga la may la may sama problème moom mm-hmm. dañoo sax xaw a nduróo max moom bu entraîné ma entraîné ñu taxaw si géew ñu tëj barrière nga gis lu garaaw. est que gis nga dernier combat bi mu gis nga jël mi ñu daan. waaw mais c'est normal c'est normal mu daan kii booy bi parce que moo ko ëpp doole Weuz Diambar Weuz Diambar normalement bu ñu takkoon ay bëtam koo ñaa war waru ko daan. lu Ouz Ouz Jambar moo ëpp doole Koña de. mais Koña kan la mujjee bëreel avant Ouz Jambar du kii la mujjee bëreel Vieux Dacia. Ah, nga Ouz Jambar ay qualité. la mais dama ne la nga xaw a ëpp kàttan mais man Ouz Jambar bu simmee ko ma simmee ko su ma ko ëppul du ma ëpp. mais est ce que seetaan nga Ouz est ce que gis nga yenn prise yenn jël yi mu daan ci arène bi seetaan nga ko. est seetaan nga Ouz Jambar digganteem ak euh, Junior. Mhm. bu Grand Yoff mbooloo. waaw est seetaan nga Ouz Jambar digganteem euh, zoro la su ma juumul. Mhm. digganteem ak euh, kii nu mu tuddati mbaytin si ñor la xaw ma est-ce que seetaan nga combat yooyu. waaw dama la bëgg xamal ne li tax ma cité ñooñu dañoo doon ay ndaanaan doon ay champion ku ñu ku jël sa avance bu ñu jëlee avance ñooñu jox la ko doon nelaw man du si bokk moo tax man saarit xam nga waaja gaa yaa kay xam. waaw waaw waaw xam li ma wax. xam nga léegi nag man dama bëgg comme te man man ñi ma xam bariwul ko quoi. Mhm. mais ñi dugg nu làmb dëgg dëgg dëgg xam nañ man maay kan. Ah, sama classe léegi nag. faaw ñu jox mako xamanteni dafa te am ciow mu éliminer ko ko defé ragné nañ ko ñepp nenañ ci ñëpp la xam nga man am na ñu ma nangul sama ndaanaan ñima xam mais ñima ma ñima xamul nak mënu ma wax ak ñoom xam nga làmb ji boo xoolee léegi dafa yaaxu parce que comme ni ka baru mbay de waxee rek euh, faaw nga am bàjjan bu ku bari wax ku lay waxal da ngay gis xam du fi def deureum <laughs> am ben ben exemple ben badu mbay buy wax di ratatati rek di wax naan diw naan diw naan diw naan te diw moom. du dërëm mais mais stratégie de communication la. waaw yow bu mu ngi fi. Mhm. Euh, sa waay ngi fi pour lan ñoom mënuñu mënuñu jouer rôle boobu. ñoo xam nga ñii. ba tey pourquoi ñoom it mënuñu di takk rajo di dugg ci rajo yi di woote. waaw loolu mënuñu di wër ñoom tamit di wax di tudd Tidiane Faye. loolu boo xoolee problème boobu lañ amoon mais yàlla def na am nañ Badou mbay boo xamante ne nii day wax Tidiane Faye day wax Petit Baye Fall day wax Ronaldinho day wax Raskas day wax Salañ Salañ day wax Jëlaan ñëpp lay waxal parce que xam ne leen ñun loolu lañ manqué woon te xam nga boo xoolee tëngéej démb ak tey xam nga ne am na changement si wàllu làmb oh, différence bu rëy ponkal yi dañuy def dara ama neex day def dara doomu dàngu limousine ñooñu kenn waxatu ndax ñoom ñëpp dañuy def dara ñooñu nga ñëw si booy yi ñooñu ils sont sortis di loolu ñooñu ils sont la de l'anonymat ay doomu dàngu ay ay euh, amaneex ay ñoom limousine ñooñu génn nañ ci loo bi ñooñu gars yi xàmmee nañ leen ràññee nañu ay ñoom gàmmu gay xam nga la mooy coow li instant bi Tidiane fay euh, kii nu mu tuddati Petit Baye Fall yaa ngi may dégg voilà voilà Abdou Gueye ñooñu ñooy wax ji instant bi may wax ay ñoom serpent ñoom Babacar Xuma mm-hmm. yaa ngi may dégg ñooñu ñooy wax ji instant bi nan la ñuy def pour ñooñu génn ci loo bi ba gars yi xamee leen ràññee leen delloo leen cër bi ñuy yelloo yaa may dégg mais ñee génn nañ ci loolu. Ah, d'accord dama la bëgg xamal ne rek maanaam comme démb li amoon démb tëngéej loolu weesu nañ ko mais boo xoolee tëngéej ju démb xool tëngéej ju tey xam nga ne am na changement mag ñi moom wax duma seen wax mais booy yi dañuy def ay différence yu leer ah. euh, Petit Baye Fall nan la mujjee def kii euh, keroog Saloum 2 Saloum non non kii euh, du Saalum kii kii euh, euh, Mor Yacine Mor Yacine Mor nga ñëw si nga ñëw si kii nu mu tuddati sax euh, Ronaldinho nu mu def kii Clémenceau kii Petit Kona ak Diawde waaw Diawde xam nga nga ñëw nga ñëw si kii nu mu tuddati sax Papa Yade ndem si yàlla si lal dafa booy ginne xam nga man nga ñëw xam nga loolu boo xoolee ñu ngi am ay révélation yoo xamante ne ñu ngi wane ñu ngi ñu ngi def si làmb loo xamante ne waaw ñu ngi def seen i preuve mais ñu war a bëre ñoom ba tey ñoo bërewul ak ñoom parce que lan xam nga rek ñun fi ñu dëkkee non petit ci boppam man daf may jooytu petit Baye Fall des fois daf ma naan grand bi lu tax gars yi mënuñ ñoo jël petit Baye Fall des fois dañuy déggante téléphone lu bëri maanaam grand bi ñun ñu ñu war a bëri jëluñu jëluñu jëluñu ñu petit Baye Fall champion la Valdo Valdo numéro 2 Valdo numéro 2 bu kaay baax waaw ay ñoom Martin bëri na fi ay mbalka mbalka bëri na fi suñu liggéey bi ay raskas ay ndaanaan nga fi fekk xam nga bu ñu waxantee dëgg rek mais boo xoolee xam nga Tëngéej amul amul promoteur waaw mais léegi am ngeen kan la

Euh, localité bu ne am benn promoteur. loolu baax na parce que aussi gars yi am na ci ñoo xam ne promoteurs yi am na ci ñoo xam ne bu ñu waxantee dëgg rek dañoo am seen i mbër. mais da ciy baax aussi saaj bu ne am benn wala ñaari promoteur nga mën a jàppale yow tey mbër yi nekk sa saaj. ñun problème boobu rek la ñu am. mais beneen sens làmb tëngéej noo koy jàngate. non làmb tëngéej ni ma koy jàngatee. dafa metti si ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk biir tëngéej war a génn yor drapeau tëngéej dem jaayante ji pour ñëw am indi ndam ndam tëngéej dafa metti

li ko li ko waral mooy ñàkk soutien booy dinañ bëgg dem stade bu paas bi seeree duñ am ñu demee stade mais bu amoon ku la jëndal bolo ko ticket boo fi tegoon 10 kaar mu fees booy daa ko ñu mobiliser léegi ana autorité yi mais autorité yi fii suñ autorité yi am fii ñu kat ah, ah seen defet la ku dul jàppale mën mu mag nooy jàppalee mën mu ndaw seen defet ndax mën mu mag sax siw na siw goo xamante ne nii sax yow comme te kooku nga kooku nga xamante ne tegoo ko loxo xawtuma ñun ñi nga xamante ne nii tey ñu ngi góorgóorlu pour yéeg ndànk ndànk problème boobu lañ suñuy xarit lañ am bu ñu amee combat ñoom ñoo si sonn xamal la nag li ngay wax xamal la benn affaire du ma tudd tur mais toog naa fi ak mbër bu mag mhm. mbër moo xam ne boo doon lim cinq mbër yi gën a mag ci tëngeej ci la bokk mais lii la ma tegal nee na ma soutien bi demeewul noonu demeewul des fois da ngay am combat jóge ci am ay bokk benn mbër bu mag bokk na ci juróomi mbër yi gën a mag ci tëngeej toog naa ak moom mu tegal ma la même chose wa comme te mbëri magi yi ñoo dem ba di jàmbar loolu waxatuma la ñun meuri ndaw yi ah, ah, comme te ñu magi ñi ñoo dem bay bay jamar malah comme te ñu magi ñi lañ mënul jàppale waxatuma la ñun ñi nga xamantene ni nii gayen xam nga moy loolu quoi mais nag sante yalla day ñew loolu sante yalla de toute façon ah, man man de maa ngi man de li ma ci mën man sama côté dina jëm de sama ak mbaru tingé ji muy yew ak muy kenen li ma ci mën hmm. dina ko jéem loolu la démé rek na gaay yi ñu bëri bàyyi